rahim awnaka ya mu'inu wa bika nasta'in wa nusalli wa nusallimu ala ashrafi al anbiyai wal mursalin sayyidina wa mawlana muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa ashaabihi wa xayri xadimihi wa ummatihi wa sallama taslima laqin lisaani waxlulan minhu l uqad wa jaalhu zakiran wa shakiran abad mbokki téléspectateurs yi nga xam ne yéenay ànd ak ñun ci seen site bi di Rafah TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di am mbégte mu rëy ci ànd gi ak kóolute gi nga xamante ni boobaak léegi yéen a ngi ko ànd ak équipe bi di Rafah TV tax na tey jii nag euh, seen chaîne euh, bii di Rafah TV fas yéene indi leen waxtaan wu am solo woo xam ne ñi ngi ko séq ak euh, jëmm joo xamante ni ku ñu xam la ci dëkk bi di doomi dëkk bi waaye itam di borom xam-xam ñu war a waxtaane nag jëmm joo xamante ni ku mat a waxtaane la di sëriñ Afia Mbacké ñu gën koo xam ci sëriñ Afia moom sëriñ Mor Anta Sali wala sëriñ Ahmadul Muxtaar comme ni koy waxee bokk ak lépp nag sëriñ maam Cheikh Anta borom gaawaan sëriñ Afi moom la ñu bëgg a waxtaane incha allahu taala ñu seq ak waxtaan wi sëriñ Modou Mbacke moom sëriñ Abdoul Wadoud xam naa dañ koy daal di jox kàddu gi mu nuyu ak bokki téléspectateurs yi su ko defee ñu tàmbali ñëw ci waxtaane lenn ci dunduk sëriñ Afia euh, moom sëriñ Mor Anta Sali bisimilah sëriñ euh, Modou. bokk jullit yi ñu ngi nuyu ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw di am mbégte ci dalal suñu mbokk yi jóge ci waa Rafah TV fas yéene seq ak ñun waxtaan mu jëm ci kilifa gu baax kilifa gu mag ku bokk ci rakki Cheikhul Khadim yi di maam Serigne Afia Mbacke te turam dëgg-dëgg di Ahmadul Muxtaar. jërëjëf Serigne Modou Mbacke moom ci nuyoo boobu waaye itam ci. wax gi ñu wax fan la ñu jëm muy war a waxtaane nag ku mat a waxtaane sëriñ Afia Mbàkke euh, ñu mi ne ko tam di dégg euh, imam di kenn koo xamante ni ci rakki cheikhul xadim la bokk xam naa balaa ñu dëgg-dëgg dugg ci biir waxtaan wi du ñàkk ñu xamle lenn ci ak gane àddunaam waaye am njàngam yitam waaye la nga xam ña nga xamante itam ñoo ko meññ itam loolu jaadu na ñu fàttali ko bokk julli donte ne ñoom sax euh, daanaka ran yu naa ni taarif lañu muy ci diggante Cheikhul Khadim Cheikh Mor Anta Sali waaye ak euh, soxna Maam Anta Ndiaye su ko defee ñu fàttali rek tuuti rek ci ak euh, ganeeg jamonoom waaye am njàngam itam moom sëriñ Afia mi ngi ganee àdduna Poroxaan ci 1870 ñu wax ba tey am na ñeneen ñu wax ne 1871 waaye dafay mel ne benn la li am solo daal mooy poroxaan la gane àdduna ci at moom ma wax eh, moom nag ni ko waxe ñu tàmbalee kon ci ñaari waajuram njëkkee waajuram bu góor waajuram bu góor mooy Mamor Anta Sali Mbàkke mi nga xam ne mooy doy Mambala Aysa mu maam Mahara Mbacke bokk ak Cheikhul Khadim ak Mamor Diarra ak seeni rakk yépp ñu bokk benn waajur mu bokk nag maam Cheikh ñaari waajur moo topp ci maam Cheikh waaye amoon nañ nag mag. muy sëñ Mbàkke Anta sëñ Mbàkke Anta moom sax moo féete woon sëriñ bi ak mag ñoom ñëpp moo den magoon eh, sëñ Mbàkke Anta amoon nañ tam beneen jigéen ñu koy wax soxna Faati Anta moo jur waa Madina gi bu ñu ñëwee ci wetu waajuram bu jigéen ñu koy wax soxna Anta Ndiaye Mbakke moom lañ ko mooy tur wi mu siiwee waaye soxna Assu Mbakke la tudd di doomi maam Ibrahima Awañang di doom ci maam Maaram Mbakke nga xam ne foofu boo xoolee bi mu bokkee ku tedd ki Cheikhul Khadim Maam Mor Anta Sali bokk ko muy seen waajur wu góor moom Cheikh Afia waaye wet gii ma tudd itam di wetu waajuram wu jigéen dafay mel ne su boobaa ci bokk gi dafay féete ci wetu nijaay ci sëriñ bi ndax waajuram bu góor e, dafay nekk walla doomu doomu bàjjan dafay nekk e, maamante nijaay dafay nekk bàjjan ci ko tàddi kon sëñ Afia ak maam Cheikh ay doomi bàjjanam la ñu doon am na sax nu ko sëñ Moussa Ka waaye uh, woon waaw fa mu wax naan naan jaam saayir jaam baatin jaam saayir gi mooy doomu bàjjanam lañu jaam baatin gi mooy ay taalibeem lañu kon daal dafa mel ne wetu waajuram bu góor ak wetu waajuram bu jigéen dañoo tasewaat ndax ki jur waajuram bu jigéen ak ki jur waajuram bu góor ñoo bokk benn waajur mu maam maam maam Maharam Mbàkke xam naa kon xëy na dañuy jàll kon ci mbiru njàngam ndax ku ne xam na ne doomu soxna euh, bu amee juróom ñaari at wala juróom benn at dañ ko daan dalal alxuraan moom nag bi mu amee at yooyu waajuram Mamor Anta Sali moo ko dalal jàng ba mu toll ci robo robo ilaa adin mu jox ko euh, Serigne Dame Abdourahmane loo ci biir daaray Mamor Anta Sali te ko Serigne Dame doon jàngale alxuraan mu doon ku teela a alxuraan lool ci loxo sëriñ daam Abdourahman Lo bi mu wattoo alxuraan itam li ñuy wax topp ak wéral mi ko mi ko defe ci euh, sëriñ Mamor mu soxna jaara ñu gën koo xam ci Mamor jaara di magam di koo xam ne itam ci digganteem ak alxuraan ku ci yàlla mayoon la may gu kawe lool te rëy moom moomu di Mamor Jaara moo téyeelaat Sëriñ Afiye alxuraanam maanaam toppal ko ko wax nañ ne topp na ko lu mat téeméeri guddi téeméeri guddi kon ñetti weer yu teg la yoo xam ne gudd gu nekk Mamor Jaara dana def yitte woo sëriñ Afiye ñu wéet ci ruq ñoom ñaar mu téyal ko alquran mu tàmbalee ko ci baqara ba mi ne jënati ba nas bu leer ba muy ñetti weer yu teg kon kooku noonu la demee ci alquran waaye bi mu noppee ci alxuraan tam daal di tàmbali jàng xam-xam xam-xamu diine yi xam-xam bi itam waaye juróom moo ko dalal waaye ci biir njàngam Cheikhul Khadim jàngal na ko ci téere yi boppam yi nga xam ne taalif na ko wala sax Mame Mor Anta Sali la laay bëgg a wax maanaam ci teewaayu Mame Mor Anta Sali sëriñ bi tàmbale woon na di taarif ay téere am na téere bu mu wayaat bu ñuy bu boo xam ne Muwaahibul Xuduus lañ koy wax ñu ko daan wax ca njëlbeen Umul Barahin sëñ bi moo ko def te wayaat ko tudde ko Muwaahibul Xuduus Maam Mor Anta moo ko ko jàngal te booba eh, sëriñ baa ngi ci daara ji moom nag moo sëriñ Cheikh Coro mi ngi xam ne ñoo bokk benn waajur ñaareel lu ñu daan def rek ñoo ko daan bokk ci diggante boobu ñoom lañ bokk jàngalandoo alxuraan ñoom la sëriñ biit boole jàngal leen téere bii ma wax léegi monsieur Cheikh Coro ndax moom moom ak seen Cheikh Thioro waaye ay moroom lañu woon yàlla it boole boole woon leen bi mu jàngee aslëf ci waajuru Mamoor Anta Sali mu jébbalaat ko nag Serigne Mbacke Bousso Serigne Mbacke Bousso li ëpp ci xam-xamam ci la ko jànge mu doon koo xam ne ku bari xam-xam la lool te teel koo bari la itam nag ndax diggante boobu nga xam ne waaye juróom mi ngi koy jàngal Mawahibul Xuddoos boobu fekk na mu wata alxuraan bu yàgg kon dañ ci dégg ne kon ku ko teel a wattu la ndax ci kanamu waajuram bu góor ci la tàmbalee jàng xam-xam ba àgg foofu ndax Mawahibou Khoudoss doo tëb rek jàng ko bala nga jàng am na yu baree baree bare yoo jàng door ko jàng euh, wàllu xam-xamam mu doonoon ko ràññiku lool ci xam-xam ci boo xam ne ràññeeku goo xam ne boroom xam-xam yi mu jamonoonteeloon ñoom ñoo ko seede loolu daal euh, xam naa ci ci wetu xam-xam ak alxuraan yaakaar naa jombut tënk boobu dana ci doon jërëjëf euh, sëriñ Modou Mbacke ci leeral gu am solo googu nga xam ne leeral nga ñu ko tàmbale ko ci ak daneeg jamonoom waaye am njàngam itam ak wat ki nga xamante ni wattu na ko alxuraan mu di di misaal rek wala di mandargaal euh, jekk goo xamante ni jekkoon na ko ndax koo xam ne euh, manes naa wax ne téeméeri yoon tari na ko alxuraan ndax bu ci téeméeri fan guddi gu nekk mu tari alxuraan loolu. lu rëy la eh, dafa mel ni itam loolu bokk na ci xususiyaat yi nga xamante ni tax na mu gënoon a jege ku tedd ki Cheikhul Khadim ginaaw ba ñu bokkee eh, seen seen waajur wu góor sëñ Mor Anta Sali waaye tam dafa mel ni bu fekkente ni eh, taarix naxuñu moom moom ak Cheikh Anta nga xamante ni ñoo bokk lépp ca la soxna su tedd sa seen waajur wa xasoon ne danaa fi jur asamaan ak suuf ca nañ ko nettalee ca xisa ba ca xas woowe nga xam ne doon na ko waxanteeg soxna jaar ba soxna jaara ne moom dana fas naa fas yéene am fi euh, asamaan si nga xam ne mooy ëmb euh, jant bi ak weer wi kon kon su ko defee loolu bu fekkente ni sëñ Modou euh, gën nañ cee taxawaat ñu xam dëgg-dëgg maqaama mi nga xamante ni amoon na ko ginnaaw bi mu nekkee doomi soxna jaar fi mu war a jaar ci am njàng nekkam ak sëriñ bi maanaam féete gi nga xam ne féete woon na ko sëriñ bi daan ko liggéeyal ci xam-xam rawatina nag tur woowee nga xamante ni mooy imaama bi loolu bëgg nañ ñu gën cee taxawaat bu baax a baax fàttaliwaat lan moo waraloon waaw moom euh, imaam googu nga wax sëriñ bi mooy ki ko ko def bu nee sëriñ Afia imaam la ñu ne ku ko def imaam ñu ne Cheikhul Khadim foofu rek buñ ci yemoon dafay doy sëkk sëkk sëkk ngir ku mën a xalaat mu xam kan mooy sëñ Afia ndax lu tax mooy. Euh, ku ne xam na ne Cheikhul Khadim amul dara lu ko ñor lu dul diine mu xam ko nag yàlla xamal ko ko xamal leen woo xam ne kenn xamewu ko noonu ci dara yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ñor ko it noo xam ne gisuñu ku ku koo xam ne diine ñore na ko noonu te loolu firnde yi dafa bari ndax diine moo tax fi jaar fépp duñ ko wax ci ci ci coono sax waaye fi mu jaar fépp ci diggante bi tubaab beeg ba ci euh, ni mu demee bay julli ca géej gaag biiru ndar baag yooyu yëpp ku ne xam na ne moom kon diine buñ day wax ku diine ñor boo accès ci moom dangay dëpp xam gi mu xamit diine peeg ko xam ko ci wet gu nekk xam la ca baax xam la lépp xam la cay jariñe xam la ca la nga xam ne itam mel na ne nuru na ne bokk na ca te bokku ca kooku kum dem bana na yi bisimilah doy na sëkk te it ku xam na ne Seexul Xadim du ragal nit du jay nit du jox nit it cër bu mu yàllawut ak loo ko jage-jage kon bala jox cër rek dana ko natt ba xam ne lii yow mii mën nga lii mu door daa jox lii ndax ci misaal euh, ci ko xam fas rek buñ ko tànnalee fasu course bu ko tànnee fas du ko raw te ni nit nit ki ki fas ñor na muy xame fasu course ba soo ko tànnee fas du ko raw bu dee ku mel ne Cheikhul Khadim ci lislaam junni na ko kay xame xame na ko moom junneem wala million am ci diine kon bu tànnee maam Cheikh Afia Mbacké def ko imam imam ak sarti imam ca xam-xam baag maando ga ak sell ga kon dañuy ja dañuy gëm ne kon sëñ Touba nangul na ko yooyu yëpp nangul na ko xam-xam mat sëkk nangul na ko maando gu mat sëkk nangul na ko sell gu mat sëkk loolu nangul na ko ragal yàlla gu mat sëkk door ko tànn mu nekk imam ak loolu lépp ñoo xam ne njëkk imam ji ku xam na ne eh, imam bu mën a doon dafay laaj naib te suñ Tuubaa fu mas a nekk mooy imam waaye it maam Cheikh Afiya Mbakke la suñu borom toofee xeloon mu nekk naibam ci fu sëñ bi mën a nekk rek ci tukki yeeg fu dul fu dul gabon rek waaye bu dee ci biir réew mii fu fu fi nekk rek noonu la fa nekkeek moom nekk nekk naayibam moo nekkoon gànnaar naayibam foofu sax am na lu fa xew loo xam ne eh, ni ma wax woon ci njëlbeen ci wàllu digganteem ak alxuraan mm-hmm. bi muy koor jotee ku tedd ki wax ko ngir mu jiite naafila gi moo daan naafila gànnaar waaye mokkalinam alxuraanam ak xeetu maxarijul xuruf bu ko yàlla may te neex baat naar yi dañ ko doon dañ ko doon seetaan yéemu ci lu taxuñ ci yéemu mooy eh, nit ku ñuul nu muy mane lii nga xam ne ñi weex ñi dañ ko naw ca loola kon moo doon ko dax am na sax naar yi dem nañ ci sëriñ bi di ko wax sa sa jaam bi maanaam nu mu neex baat ak nu mu mën a alxuraan mun leen du sama jaam sama rakk la loolu xew na ca gànnaar noonu la nekkee noonu gànnaar bi bi sëriñ bi ñëwee ceyeen gi noonu la nekkee moom ceyeen waaye njëkk muy muy muy muy dem nag ci tukki ba moom bi muy dem ci géej gi daf ko boole woon ak maam Cheikh nekkoon a dem toog fa néggandu sëriñ bi foofu ba mu ñëw bi sëriñ bi ñëwee nag la ko door woo nag mu ñëw nag fépp fu muy dem ñu ànd fa ba ci njaareem jéeg eh, ba ci nim ko defe imam ci kër gu mag googu ndax yi sëriñ bi mi ngi woon mi ngi ci biir kër gu mag gi euh, sëñ Cheikh Mbacke yàlla yàlla doole yokki leeram mooy ki ko tabax ki ko defaraat loolu yàggul lool sax ndax euh, man mii di wax ak yow bi ko sëriñ Cheikh di tabax ngoor gu nekk dañ fa daan dem ngoor gu nekk sëñ Cheikh day génn toj piliaan bi nekk foofu di taxawu liggéey bi mu jàkkay jàkka yi sëriñ bu mag bi nekkoon daan fa jiite te su génnul rek. suñu affaire jiite ba ci julli goo xam ne sax sëriñ bi dafa cee ñëw ànd ci jox ko ndigal mu jiite julli googee sëñ Abdou Khoudous Mbacke mii mu mag nee na ca ca kon doy na sëkk cër àdduna ak alaaxira ñu ne diw sàngam mii de jiite ne seexul xadim julli. ma loolu de xanaa bëriwul lu muy am ku jiite Serigne Touba julli. waaw man de wax dëgg yàlla ci sama gàttub dégg moom laa gis ne eh, wax nañ ko fu bëree bëri daal am na it firnde yoo xam ne fekke nañ julli ga muy suñ maam jooju Cheikh Abdoul Khoudous loolu loolu kon cër bu rëy rëy la musta tàggoogu nag sëñ bi benn yoon xam nga ca ca teel ci bi ñuy ndaw la seen waajur wu jigéen teeloon a jébbal sëriñ bi ci ci ci nekkuk Mamoor Anta Sali mooy mooy mooy loolu nga xam ne waxtu na ñu koy waxtaane léeg-léeg sax njuumte di ci am te mooy léeg-léeg dañ naan sëñ bi Mamoor daf ko woo ci néeg bi di waxtaan ak moom Maam Anta Njaay toll ca sàkket wa di leen déglu loolu njuumte la ndax loolu eh, ku seele ne Maam Anta Njaay ku tedd ne moom ku baaxee ne moom ku xam lam la ko indi ca kër señ ba ak nam ko yokkee ak nam ko yàqalee danga xam ne kooku du jigéen ju yëddu te loolu buñ ko firi ci wolof yëddu la ni mu demee nii la woon te fi ma ko jëlee fu wër la ndax ki ma ko wax ki ko wax doomi Seexul Xadim la nee na sëriñ bi dafa dafa dafa dafa Maam Mor Anta Sali dafa woo mu ñoo toog ginnaaw nag Maam Njaay moo fa jiitu kon mooy moo mag ca kër ga ko kon waxtu wu dafa daf koy jege mu fekk Maam Njaay mu toog ci biir néeg bi Maam Mor euh, ne ko waaw ndax fii kenn nga fi balaa tàmbalee wax mu laaj ko ndax day bëgg wax lu ko ñor mu ne ko ndax kenn nga fi sëriñ biit ca mbaax ga ak sell ga bëgg na lépp lu mu wax muy lu wër te it xam na ne Maam Anta Njaay mii mën naa fekk lu ne ndax xam moom ku tey xam na xam na xam na bu baax euh, kan ma maam maam maam maam Anta Njaay Mbàkke mu xam ne mën naa fekk lu ne te bëgg na it li ko sëñ bi wax mu tontu ko te lam koy tontu doon dëgg gu weex tàll mu daal di rëdd aw rëdd li ñuy wax tawriya daal di jël baaraam ba teg ci digg rëdd wa daal ne Mamor fii de kenn néew fi Mamanta Njaay ngi toog waaye euh, noonu la ko defe ndax euh, ku baax la ku tedd la ku am kerse la koo xam ne bëggutu bëggut di wax dara Mamanta mu daal di rëddu rëdd rek. samp ci digg bi ne ko fii de kenn ñëw fi mu jeex Mamor wax ko lam koy wax ci digganteem lim ko dénk ci boppam ak lim ko dénk ci ay rakkam wala ak njabootam Maamanta Njaay Mbàkke daal dégg loolu bi mu génnee ginnaaw ñaar la fa amoon muy maam Cheikh Anta ak sëñ affaire rakkam mu teel leen a wax lam leen di wax ca teel ñu dem joxe Sëriñ Tuubaa seen bopp. waaye ak fekke la goo xam ne sëñ bee ko ci jublu fekke la goo xam ne sëñ Touba moo jublu Maam Anta Ndiaye fekkee waxtaan wa ndax xam na ne mën na mën na ko fekke sa noonee la nekkee moom musta tàggoog moom ba noonu ma ko waxee ni mu ko jàngeel alxuraan ba ni mu ba ni mu àndeek moom ci fépp ba bi muy dem Gabon bàyyi ko ci maam ba Anta ba dellusiwaat jëlaat ko ni mu ko jëlaat nag tàggowaatuñ nag ba ba fukki at ak juróom yi mujj njaareem yëpp ci biir loolu sax jege gi mu jegoon woon Cheikhul Khadim eh, tax na man musuma gis lettre boo xam ne dañ ne lettre bi sëñ Touba moo ko bind sëñ Afia musuma ko gis te li ko waral mooy. nit bu fekkee foo geesoo gis ko doo ko jox lettre mosuñoo tàggoo bañ na ko ba biir kër seexul xaddim gi ci njaareem fala la wutaloon sëñ aafee ab roqam mu dëkk ak moom am na sax ci ak njabootam ñoo xam ne biir kër sëñ Tuubaa lañ ganee boo ko na suñu maam ju tedd ji Cheikh Abdoul Akram biir kër sëñ mag bi la ganee àdduna ci njaareem ndax Euh, mënu ko sori yàlla it tawfeexloon na ko euh, njabootu sëñ bi yépp moom moo ci dëkkoon ak moom ci genn kër waxtu wu ne mu gis ko waxtu juróom julli juróom yépp li ko tàmbalee ci fajar gi ba ci gee gi fu sëñ bi ne sami allahu liman amida mu ne rabbana walakal hamdu fu mu kàbbar rek mi ngi moo koy li xamal moo taxoon euh, mu tënkoon ko ne ko maag yow am na luñ talut luñ talut toogal fii may jaamu yàlla nga deme a seede moo tax dawul dem fen sëñ affaire daanaka bu may wax mën naane ne musta tukki musta dem fenn at ba at daal tam xarit ba bët set daana dem seeti magam ju baax je maam Thierno Ibrahima ndax day magam di xaritam lool ca moo Muxti loolu daan def boo xasa jógee Daaru Muxti ba ñëwaat njaareem itam nag du ko génnaat ba déwénati mu jëmaat seeti magam ju tedd dawul dem fenn ndax nekk ci ndigalu sëriñ bi rek ndax imaam jot mus dem tukki fenn wala boog lim tukki mënoo ko lim ciy baaraam nekkoon ci wetu sëriñ bi rek. nekk ci wetu sëriñ bi rek. léegi ginnaaw euh, wax nga ko léegi ci biir waxtaan wi muy euh, bi sëriñ bi di dem Gabon. Euh, daf koo féetale woon ca magam ju baax ja suñu maam Cheikh léegi mën nañoo xam foofu sax relation bi nga xamante ni alaaxa bi nga xam ne am na ci diggam ak magam ju baax jooju suñu waaw moom xam nga fii li li nga xam ne moo fekk baax rek mooy sa mag moom sa kilifa bii nag di kilifaam ñaari yoon ndax day magam di kilifaam ci bokk gi waaye seen kilifa dénkaat ko ko na ko toog fi néeg ma ba ma ñëw diggante boobee nag ndigal la nekk woon ci wetu magam jooju di maam Cheikh Anta ba bi del si noonu la fa waaye ci biir nekku nekkiinu njaaree mi itam ñaare xam nga sëriñ bi dafa jaaxaloon jamono fu na li di jóge di ko seet si te neexutoon a gis léegi nag ginnaaw moo fa nekkoon ci rakkam ju ko jegee noonu képp ku ñëw rek da ngay dem ci moom ñu ëpp yitam ci ñi daan laaj ci wàllu xam-xam ci naar yi xam nga naar ñoom waxtu nekk eh, ci ci ab laaj ci diine moom ci ñoom layam yem waaw loolu la ñuy laaj te ginnaaw dañoo déggoon sëriñ bi nag ak ak ak déggin woo xam ne dafa dafa jaaxal àdduna te ñoom itam lépp lu leen jaaxal ci lu baax foog ñu jëm xam ñu daan ñëw ci sëriñ bi nag di laaj si. te neexutoon a gis ci maam Serigne Afe lañ la leen daan booleel tontu laaj yëpp daanaka moo ko daan def bari na ci ay magi taalibe ci kanamu Serigne bi yoo xam ne képp koo xam ne yàlla dogal na nga wàcc liggéey njaareem Serigne bi du moom lay wax ne la na la taxaw magi taalibe bi kilifa yi nga xam ne ñoo jëwriñu yu mag yi ci yoon wi te lax te te te jiitoo ci kanamu Serigne bi ci njaareem maam Cheikh Afia Mbacke moomu la sëriñ bu mag bi daan wax ne na dem taxawe ko ñaanal ko. parce que loolu day day tekki rek doyloo gi nga xamante ne sëriñ bu mag bi doyloo na ko ci lépp rek ndax fi mu féete woon sëriñ bu mag bi moom moo moo kawe lool muy alxuraan euh, ndax sëriñ bi ci ay mbindam day wax ne bi xidmatil kitaabi wal xadiisi yasbutu laa bi zahabin mawruusi mu mel ni kon dafa mel ni lim gënoon a bëgg ci àll ci ci àddina mooy alxuraan te dafa mel ni maam suñu maam maam suñu aafiya daf ko faa féete woon te mate ko nag mate ko sëkk nag ci ci xam-xam ba ci lépp loo xamante ni euh, euh, sëriñ bi mag bi daan na ko soxlawoo ci moom rawatina ci ni nga ko waxee ci tontu ay laaj waaye ci féete ko itam ci njaboot gi rawatina ñi nga xamante ni ñooy ñiy dawlu waaye dawlu yi moo leen daan taxaw daan leen jébbal seen borom kon loolu dafa mel ni kon euh, day tekki rek doyloo gi diggam ak itam magam ju baax jooju suñu maam Cheikh Anta borom gaawaan nga xamante ni ni nga ko waxee ñaari kilifteef dafa dox ci diggante ak moom muy kilifa nekk gim nekk magam waaye geneen gi tam mooy dénk gi nga xamante ni sëñ mag bi dénkoon na ko boole kook moom mu nekkoon ak moom dan ko déggal nag déggaloon ko lool ñu déggoo woon itam ñoom ñaar yàlla boole leen euh, def kii mu doon ki nga xamante ni moo daan xeetali jaam ñi ci wàllum àdduna wàllu euh, zahir ci niñ ko mën a waxee kii daan xeetali jaam ñi ci wàllum baatin mooy féete leen ci wàllu seen diggal seen borom subhaanahu wa taala loolu itam di liggéey boo xamante ni bu ama am solo la xam naa ci ak tënk rek euh, sëñ Modou diggante nag sëñ Afia ak njabootu sëriñ Tuubaa gi loolu itam xam naa duñ mën a tudd sax waaye buñ ci amee ñaar ba ñett rek rawatina ci euh, ñi nga xam ne ñoo gën a sës ci sëriñ bu mag bi. waaw ñooñu moom euh, bu dee ci ci doomi sëriñ bi ci boppam mën naa ne ñëpp ay xaritam lañu ñu woon waaye ku ci mel ne euh, Cheikh Abdoulaye borom dër bi moom sëriñ bi am nay jamono sax da ko joxoon mu nekk ak moom. Eh, bu dee Cheikh Mamadou Moustapha moom eh, li may firndeele seen diggante mooy sëñ Afia am caatam sëñ Mamadou Moustapha la ko tudde caatu sëñ Afia sëñ Mamadou Moustapha Mbacke mii la ko sëñ Afia Mbacke tudde kon eh, loolu rek ku ci xalaat danga xam ne ku ku ku ku bëggoon sëriñ Touba la ku ku ko toppoon la ci anam gu gën a rafet ku ko mus sa mooy ci dara la waaye ginnaawam itam ñim fi bay ñëpp jàpp na leen sopp na leen ànd naag ñoom itam ba ni suñu borom dogale ci moom ma war a fekk sëriñ bi fekk ge itam di doon loo xam ne lu am na am na am na xar baax mooy lan mooy ku te gi Cheikhul Khadim dafa mas wax fekk booba la la waraloon wax ji maam Cheikh dafa dafa ak wéradi da ko dikkaloon wéradi yaram gu xaw jéggi dayoo ndeysaan euh, sëñ Afia daal koy ñeewent ñëw ci sëñ bi di ko ko wax ca nam ko koy waxee nag wan ko na daal euh, tawat ji daal xaw naa jéggi dayoo sëriñ bi ngir dalal ko daal na ko waaw moom day seex euh, de na nga xam ne yow mii donte ne saa yaa ko koy jiitu àjjana yaa koy teeru yaa koy dalal àjjana ah mu xam ne kon magam ji day jógaat ñu ñu dundaat fi nag at yee soob suñ borom ba bis mam Cheikh tëdd ndaw jóge Daaru ñëw njaareem wax ko ko mu daal ñëw bi ñëwee nim ko gisee xam na ne kii fabu na te du te du gannaaw te xam na it la ko magam ja di sangam ba waxoon dana am moom mi ngi taxaw dara jotu ko te gis na ne magam magam ju baax jiikat moom fabu na ba noppi te dara jotu ko sëñ Moustapha Ceytu mu maam Cheikh Anta moo wax ne keroog bank bi maam bi bay sëñ Afe toog maa ko ko tegal fauteuil bi mu toog maa ko tegal ni mu mu mu mu tiim maam Cheikh Anta di ko xool ak di ñaan waaye bi ne sama mag ju baax a jëlee di sama sang ba lam waxoon dana am te kii moom fabu na bu noppi te bi mu ko waxee mi nga ànd ak sagoom lool seenub jarbaat sëñ Mor Fatou Touré mi ma tàmbale bi mu soxna Fatou Anta mi ma waxoon ne seenub jigéen la kon sëñ Mor Fatou seen jarbaat la te it day jarbaat boo xam ne mag la daanaka seen morom la mag la mag la lool. ba daan ne ko ah, waaw sama nijaay ginnaaw yaa ngi nii taxaw ànd ak sa sago te xam nga ne kii yaa ko jiitu nga xam ne kon foofu ñu ña fa taxaw ñëpp ay nit yàlla lañ kenn ragalut kenn tiitut waaw ndax kii wax ak nijaayam ba noppi ànd ak sagoom nijaayam gën ko ànd ak sagoom kon ñoom am na leneen luñ gis lu dul li ñuy gis mu ne ko kon nag sama nijaay damaa bëggoon ginnaaw yaa ngi nii ànd ak sago te xam nga ne yaa koy jiitu nga wax dara nga battale nga wax booy dénkaane nga wax ko boog balaa yëf yee dikk mu ne ko ah man de xam naa euh, samay wax du ci bari xam naa li ma xam ba xam ko daal mooy ba mu xamee sama loxo ndeyjoor bii ak sama loxo càmmoñ bii ba fii ma taxaw di wax ak yow mii musuma fàttali ko fu ma tooñee sama borom musuma fàttali ko dem fu ma tooñee sama moroomu jaamu yàlla lii daal laa xam te loolu lépp nag ku tàddi rek moo ko def ci moom moo ko jaarale fa mu ko jaarale ba daal a taxu ko ba ba muy dellu nam sete woon bi muy ñëw ba muy dellu noonu la sete ak yu baax yi ñu bale mën nañoo xam waaw keroog bi bi nga xamee ne wax na wax wax na loolu ci jotaay bi ba jàll ci biir ba léegi boo demee néeg ne fi ko defee woon ma nga fa Daaru Salaam waaw euh, fii fii tabax boobu booy booy dugg fi seen jiile nekk da ngay gis detti mbeer ba foofu la moo nekkoon jàkka ja fi mu doon jullee néeg bi mu doon nekk it mi ngi fi ba léegi nga xam ne ñaari néeg lool woon benn néeg bu ñëwee moo ci ne bi mu taxawal ci la sëñ gaawaan doon nekk euh, bi nga xamee ne nag tàggoo na fa ba dugg ca daal ba gannaaw yor yor la fa ñëw wala boog digg bëccëg wala gannaaw tàkkusaan daal bëccëg bi daal nekk na fa ba fajar bi mu jullee fajar ba noppi ci ni ko sëñ Mate Lamine Diop Dagana waxee ca marché ba eh, ca fajar googee fa muy jullee bay taaya fa la yëfee dikkee nga xam ne keroog bi bi nit ñi di di yuuxu waa Daaru Salaam ñoom dañoo defe ne maam Cheikh la ndax yëguñ kañ lef sëñ Afe ñëw ah foofu itam am na lu xew ndax bi mu bi mu làqoo sëñ Modou Mamoun nga xam ne mooy taawu maam Cheikh Anta te moo moo mag taawub sëñ Afe muy sëñ Modou Farmata mu ne ko waaw muy muy taawu sëñ Afe sëñ Modou Farmata man sama torondoo mu ne ko waaw eh, nu ñuy def ñoom ñaar ñi kat ginnaaw moom wàcc na te kii itam xam nga ne mi ngi ci yoon ndax gënutoon ñoom ñaar ñëpp ñu dencandoo leen Daaru Salaam xam nga kooku it gëm na ne <laughs> day am passage sëñ Modou Farmata daal na ko ah man de yow sama kilifa loo mu wax rek ma fekk la ci. waaye soo mayoon tam de ma wax la ñaari baat mu ne ko waaw bisimilaay mu ne ko moom day bu nekkee njaareem bu ma saan leewi ko walla mu wat kawar gi danaan nañ ma ko yóbbul Touba mu jiitu ma fa kon pas-pasu taalibeem loolu rek doy na ci sëkk pas-pasu taalibeem lii rek doy na ci na nañ ma ko yóbbul Touba mu jiitu ma fa sëñ Modou Mamoune ne ko ah kon koy yow wax nga lépp kon koy dañ ko yóbbu Touba ñu ne bisimilaay ñu indi oto ñu ne tudd ko yóbbu dañ ciy barkeelu ba mu àgg Touba ñu doxee Daaru Salaam te diggante bi lépp àll la bi ñëwee ba ndaam ndaam àll la pënd bi ne kur ñu dem wax ko sëñ daam sëñ daam génn gis ko ñaan delluwaat ci guddi lañu agsi fii bi ñuy ñëw fekk nañ li tax yëf yi xaw a xaw a maanaam ku ko def ci fajar ba heure boobu li ko andi mooy sëñ moom Moustapha dafa dafa nekkul woon te demukaay itam xawoon a am tuuti retard ba tax mu yéex a ñëw te moom lañ ci doon déglu bi mu ñëwee nag ci waxtu woowu la daal di ñëw ci penc bi moom sëñ moom Moustapha eh, nafaanallahu barakaat yi defar aw yoon woo xam ne nit ñi ñii dañuy toog nii ñii toog nii mu jël ay làmpe fatafoor ca jamono booba teg ko ngir ñu man a gis ñu jaar fi ba indi maam Cheikh Afia mu wax sëñ fallu na ko taxawe ci ndigalu sëñ Mourou Moustapha moo ko taxawe bi mu ko taxawee ba noppi itam nag euh, sëñ Fallou sëñ sëñ Modou Moustapha ci tënk baat yam wax daal ci seede ci digganteem ak suñu aafiya ci dem ko xamal ci wàllu jàmm yàlla ak wéetal boroomam doy na sëkk dala ko seedal keroog nafaanallah bi barakaatihi amin jërëjëf sëñ Mouhamed Mbacke euh, monsieur Abdoul Wadoud dégg ngeen waxtaan wi wax dëgg yàlla doy luñ ci waaye waxtu yi xëy na moo ñu xoj ci jëm ci jeex xam naa dañuy daal di jox sëriñ bi rek euh, mu daal di tàggatoo ñu daal di ñaan incha allah kon nag alhamdulilahi rabbil alamin xam nga tey dafa nekkoon bis bi nga xam ne dañuy waajal bis bi ku tedd ki joxe woon taalibeem boobee di rakkam jët euh, sëriñ Afia Mbakke bis bi mu ko joxee jumaay njaareem wala jàkka muy jiite foofu jiitu jumaa ji jàkka ji la doon jiite ci biir kër mag bi jiitu ginnaaw bi nag la tàmbalee jiite ci jumaa ji bis boobee nag moom la njaboot gi wax ne ndiggalu rëy noonu saa bu dikkatee nañ dajaloo ci ndigalu xalifa xalifaam bu fa mën di nekk ñu daje njaareem dolli ay ñaan euh, def ay bernde jokkuwaat bokk gi ci bis boobu muy euh, buñ ne suba la màggalu daara xudóos gi lay doon ci njaareem Euh, mm, sëñ Afia Mbàkke nag ñi nga xam ne ñoo ko fa wutu ñëpp mm, nga tàmbalee sëñ Modou Farmata ñu nga xam ne mooy taawam te xaw a maase ak señ Basiru gannaaw bi Xaasim xaw a maase ak sëñ Abdoulaye borom dër bi sëñ Abdou Lakaram maase ak sëñ Saaliwu ñu ci des ku mel ne sëñ sëñ Gade sëñ Modou Abdoulaye jaar fi moom itam ba ci suñu kilifa gu tedd gii fi nekk di Serigne Saliou Mbacké di nit ku baax di nit ku woyof di nit ku doylu gu nit ku àdduna mënul dara sëñ Saliou mooy nit ku àdduna mënul dara sëñ Saliou sëñ Afe yàlla nañ ko fi yàlla bayil mu gudd fan lool te wér lool ci barke Cheikh Khadim noonu it la ñuy ñaanalee sëriñ Moustapha mi nga xam ne ñoom ñaar rek ñoo fi des sëñ Moustapha Afe mi waxoon ne sëñ dañ ko tudd sëñ sëñ Modou Mamoun sëñ sëñ euh, Modou Moustapha mi ngi fii rek këram mi ngi fii mu bokk ci jàngkat yu njëkk yi nag waaw sëñ sëñ Moustapha ci ñi ëpp xam-xam ci réew mi la bokk liggéey na ci àdduna bépp siiri nag fi ñu naan wax euh, euh, Damas fa la ëpp woon ab liggéey ci ambassade ba léegi ñu bis na mi ngi fi këram ngi nii waaye moom it li ma wax seen Saliou rek moo nekk ci moom xam naa daal niru nañ seen bàyyi ba àdduna mënul leen dara yàlla ñu fa gën a yàgg ñun yàlla yàlla ñu yàlla gën a xiir ci ñu di leen déglu te leen déggal mm-hmm. barke Cheikh waxtaan wi am na solo lool dëgg yàlla doyaluñ ci waaye nag euh, lu dul jeex moom loo ca am rek mu daal di doy euh, waxte waxtaane gaa ñu baax ñooñu daf ñuy dolli ak pas-pas daf ñuy dolli itam ñu gën leen a sopp ndax buñ leen soppee xay na ñu roy leen xëy na bu ñu leen royee itam yàlla mën na cee def suñu gindeeku waaye suñu euh, texe itam mën na cee toog rawatina nag euh, jàmbaar ji nga xam ne mën ngeen waxtaane di sëriñ Afia Mbacke ñu gën koo xam ci sëriñ Afia Ahmad Muxtaar moom sëñ Mamor Anta Sali ak euh, soxna Anta Ndiaye di ci sëñ Mor sëñ Maam Cheikh Anta Borom du Gaawaan di sant itam bu baax a baax commission bi nga xamante ni ñoom ñoo ñu yabal tey ñu seq ak waxtaan sëñ Modou mi sëñ Abdou Lahad Mbacke ñu koy sant baax a baax di ko jaajëfal di rafetlu taxawaayam sëñ Mouhamed Mbacke ca Sangalkam moom itam taxawaay bu am solo mi ngi koy liggéey foofu ñu ngi koy sant bu baax a baax ndax bëri na lu mu yombal ci euh, jotaay bii nii ngeen sant itam mbokk yi di leen fàttali bu baax a baax euh, lii lenn la woon rek ci liñ leen war a waxtaane ci jëmm ju baax jooju di sëriñ di santaat bu baax di gërëm ki nga xamante moo ñu ko waxtaane di sëñ Modou Mbacké di ñaan suñu borom guddalaw fanam lool te wéral ko ku ñu naw la ku ñu ku ñuy bàyyi xel la ci yoon wi euh, rawatina nag ci Sénégal sax laay wax ndax fu bëree bëri ma nga fay dem di boole li nga xamante ni mooy mbokk gi sëriñ bu mag bi amoon ci digg mag ñëpp ñi nga xamante ni bokkoo nañu kon ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax sëñ Modou suñu borom yàlla yàggal taxawaay bi te dolli wér gi bu baax a baax ci barke Cheikh Al Khadim mbokk yi kon euh, mbokk yi euh, waxtaan wi mu ngi noonu ngeen àndoon ak euh, Abdou Lahad Ndiaye ci présentation bi Mourtada ci caméra bi di leen sant di leen gërëm ci beneen waxtaan incha allahu taala asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.